jàppe xurubaati ak jaamu inda lay fa yàlla kon ñoom loolu ñuy joxe dañ koy jàppe jaamu yàlla te dañ koy tuddee asaka yàlla fay leen dañ koy jàppe kon xurubaati ak jaamu inda lay fa yàlla wa salawaati ak topp ndigal yonent bi baatu salawaat foofu di su ko firi julli kon nag dañ koy jàppe jaamu yàlla wa salawaati ak topp rasul bi yonent yàlla bi li ñuy yàlla nii ana ala demani innaha loolu ñooñu di def qurbatun ak jaamu yàlla lahum ñeel leen danañ caa am yool bu rëy mën na leen a dugal sax aljana moo tax mu ni sa yudxiluhum des na leen ci dugal allahu yàlla bi rahma ci ci yërmande dañu yërmande yàlla jana ginnaaw faatu mooy aljana kon boog sa yudxiluhum dana leen dugal allahu yàlla bi rahma ci ci yërmande bi mooy aljana dina laa yàlla faxurum mooy kii jéggale waate rahimun mooy ki am yërmande ñeel ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ak kayit ñoo ko jagoo léegi nag bàyyi na loolu ñu ñëw ci nii nit ñi nag dañoo nekk ay xaaj am waaxun mooy ay xeet ay façon lañu am na ci ñoom ñoo xam ni ñoo jiitu te ñu jëkk ña di way gàddaay ya nga xam ne ñoo jiitu te gàddaay ga fekk yenent bi Madina di ko jàppale wante ñooñu ñi ñeñ fa fekkoon ñi waa Madina ñu te gëm yàlla ñëpp nga xam ne du ñuy naa fekk dalal leen dimbali leen ñooñu am nañu daraja ak i maqaam ña nekk ca biir madina ci ay naafeq ñoom nëpp seenu naafeq alxuraan moo koy feeñal mi ngi ñëw ci dog bii nu tiim ci kanam lay wax ni biir madina yonent ba nga fa dëkk ak ñoom waaye teewul naafeq yaa ngi woon ca biir seen séer borom bi nee na wa saabixuuna way jiitu ña al awwaluuna mooy ñi jëkk minal muhaajiriina te way gàddaay maanaam ñi jëkk a fekk yonent bi madina gàddaay ñoo jiitu rek ñuy ëpp yiw ndax ñoo a fekk yonent baax loolu waaye wal ansaari ñi leen dalal itam dimbali leen dëkk Medina di ay julit dalal leen bokk ak ñoom lañ am ñëpp loola ñooñu itam baax nañ wala si nag ñi xam ni attabaxuhum mooy ñi xam ni topp nañu leen bi isaan ci aw yiw ak rafetal rabbi ya gërëm na laahu yàlla aanhum ci ñoom ñooñu na nga xam ne yàlla gërëm na leen maanaam sant na leen mooy gërëm na aanhum ci ñoom wa ahadate waajal na lahum ñeel leen yal naa jël ji nga xam waaj mooy préparé kon wa ahadda préparé na la um ñeel leen yal naa jël mi nga xam ne te jii ma daw ak a dox tax ci xaar te suufam tey na waxul min kon ak tax taxaa min ji dikkul moo tax tax tax xaar àjjana nekk na ca suufam al anhaaru ay séw de xaalidina ñuy wéy dee yaa ca àjjana jooju abadan ba faaw nag mooy dëkk bu dootul toxu saa yi loolu nag ñam ba àllaaxira dëkk àjjana dootoo toxu alfawsu mooy texe al azimu bu màgg a màgg a màgg yan xel defal. ñu ñëw léegi ci ci dëkk yi wër Madina yàlla di wax ni am na ci ñoo xam ne naafeq lañ wante même biir Madina am na ci ñoo xam ne it bàyyiwuñu naafeq wala bopp delloo nañ ko ndegam bàyyi woon nañ ko. loolu lay wax ni wa mimman hawlakum am na ci dëkk yi leen wër yéen waa Madina min al ahrabi ci sàmm yooyee nga xam ni dañoo sori ca àll ba munaafiqoona ñooñu ay naafeq lañu wante wa min ahli madinati am na ci ñun waa Medina itam maratu ñoo xam ni dellu nañu ala nifaaxi ci naafiq yéen nit ñi nag laa taalamuhum xamu leen leen yàlla nee na ndax nu man yàlla naalamuhum maa leen xam waaye ñooñu ñëpp nag. ñett ñu jëkkoon a nekk ñi ci dellu sanu azibuhum dina leen mbugal moom yàlla marratay ni ñaari yoon suma yuradduuna topp danañ leen delloo ila azabi ci mbugal azimin goo xam ne gu màgg la mbugal gu rëy ci leen yàlla yóbbu kon imam Shafii mosoon na ñëw gane si imaamu Malik imam Malik moom moo nekkoon Madina fa la dëkkoon mosu faa jóg imam Shafii mu am nekkul biir Madina mas naa ñëw nag gane si imam Malik noonu ñuy def rek di waxtaanante ci alxuraan ak mel ni jamante ay baat wala ay aaya imam Malik ni ko ah waaw li ngeen def yéen alxuraan nee na yéen dëkk yi wër Madina yéen a ngi ci naafeq rek wa man awlakum min al ahraam alxuraan moo nu ko wax moo ni yéen mooy waa Madina dëkk yi leen war am na ci ñoo xam ne ay naafeq lañu waaw ah, wa man awlakum min al ahraam imam Shaafi loolu alxuraan la waaye may itam mën nga ma may ma jàng alxuraan mooy ko waaw mu daal di tàmbali moom itam ni wax nga dëgg de wa mimman awlakum min al ahrabi munafiquna wa min ahli al madinati maraddu ala nifaqi laa taalamuhum nahnu naalamuhum sa nu azibu ba muy wax sa nu azibuhum marratayni rek maa dindi ko kafaar doon na doon na doon na yamal ko mooy ko waaw wax nga dëgg de yàlla nee na dëkk yi nu war yéen waa Madina am nay naafeq waaye Madina ci boppam it am na ñoo xam ni nekkoon nañ ci naafiq tuub mais dellu nañ ca marat tuub mooy delluwaat nañ ci naafiq tey ñooñu yàlla dina leen buggal buggal gu métti wala muy wax as yi moom mu ne ko doy na bul àgg bul yàlla nee na wa aaxaruuna am na yeneen i naafiq yoo xam ni i'tarafu xam ngeen leen di sunoo bi ci seen bàkkaar yi ndax nañ koy xamee naafiq xalaatu nee na day jaxase amaleen jëf sari an jubaa wa aadara ak yeneen jëf an yoo xam ne ju ñaaw la asallahu mu nam yàlla an yettu ba mu baal alayhi ci ñoom buñ jéggaloo ko bala ñoo faatu buñ tuubee dugg seen yàlla jéggal leen inna laa ndaxte yàlla xafoorun mooy kiy jéggale wante rahimun mooy ki am yërmande ñeel ñëpp ñi nga xam ne dañoo tuub da leen di jéggal ndax yàlla dafa bari yërmande ñu ngi ñëw léegi ci ñu ngi ñëw léegi ci beneen atte waaye du sori fi mu nekkoon léegi mi ngi ñëw ci mbirum saraxe mbirum saraxe ak joxe asaka mu ko waxe woon ci ginnaaw ni asaka yàlla ko santaane ni mu santaane julli santaane woor noonu lay santaane asaka ñu war koy joxe muy farata ci képp koo xam ni euh, sart ya daje ci sa alal su boobaa asaka wàcc bu boobaa sax asaka ku koy bañ a génne dañ koy jëli forcé dañ koy force jëli ndax xus la wax xos min amwaalihim moo tax yàlla nee na xos waxal yonent bi maanaam xos jëlal yonent bi min amwaalihim te seen alal ya ñooñu bari alal mu bari lool ñu am nisaab na nga dem forcé jëli alal jooju di asaka xos jëlal min amwaalihim te seen alal ya sadaxatan sarax bu tuddoo asaka asaka kon dañ koy tuddee sadaxa danañ ko tuddee sakaat dañ koy tuddee sadaxa muy sarax ci ñoom dañ cee am yoonu sarax ba noppi pour ba réewum daf leen di laabal watu sec ci te da leen di sellal bi aa ci loolu ñu joxe asaka nekkate kon asaka day day laabal nit ki ci bàkkaar waaye day sellal alal ji da koy sakkana da koy sekkil yàlla mu ni nag képp koo xam ni jox laaj nga ko asaka mu jox la na nga ko ñaanal na nga ko ñaanal ni ko yàlla na li ci des barkeer su ko defee ñaan googu bu dal bu dal lay doon ñaan googu bu porté la mooy day nangu loola ko ni wa salli na nga ñaanal aleen ci ñoom salli jooju du julli ko nag bi nga leen laajee asaka ñu jox la ko wa salli na nga ñaanal aleen moom aleen ci ñoom ndax dina salaataka naka sa ñaan boobu nga leen di ñaanal sakanun loolu dal la daw ñeleen mooy day nangu baatu sakanun mooy ay istijaabatun lu ñuy nangu la ñaan ci day porté law ci ñaaw wallaahu yàlla samiun moo dégg lépp alimun mooy ki xam lu ne lu nekk rek moo xam na muy def ci ak na muy doxee waaye moo dégg lépp itam loola mooy dégg ñu dara rawu ko wante dara réeru ko itam yàlla nee na alam yaalamu xanaa xamu leen nii ànd laay naka yàlla ko moom yàqabatu mooy nangu tawbata tuub yi ñëpp ñuy tuub jëm ci yàlla moo leen koy nangul an ibaadi gi ci jaamam yi kon nag tuub dafa am njëriñ dafa am lu baax te yàlla daf koy bëgg ku tuub ñu jéggal la <gasps> ku tuub ñu jéggal la ko sant mu dolli la ku tuub mu jéggal la ku sant mu dolli la moo tax ab jullit ñuy bëgg muy tuub fu mu toll ndax inna laa yaqbalu tawba an ibaadihi waaye noonu muy nangoo noonu muy jéggalee ka nangu tuub noonu lay nangoo saraxe lépp lu ñu saraxe te yàlla tax yàlla moo koy nangul boppam moo lay fayal boppam yow mi joxe ba tax wala sax daf koy wax ku lay jox naan am ngir yàlla kon yàlla tax mu joxe moo tax it bu boobaa na ko wóor ni ci loxol yàlla la teg kon yàlla koy fay looloo tax alxuraan mu ni yàlla mooy nangu tuub yi wa yaxusu waaye mooy jël sadaqaati sarax yi wa ana laa yàlla huwa moom attawaabu mooy nangu tuub mooy baale arrahimu mooy kii yërëmi léegi nag muy wax ni yow yonent bi waxal ñi nee yàlla gis na seen jëf man yonent bi gis naa seen jëf yéen ñi gëm yàlla it yàlla dina leen fay seen jëf yu rafet yooyu loolu la ko alquran yàlla wax ni mu muhammad waxul waxal imal wa jëf leen fa fa yaraa dana gis noos laahu yàlla amalakum seen jëf yi wa rasuluhu yonentam bi gis na jëf yi wal muminuuna ak ñi gëm yàlla yëpp gis nañ jëf yu rafet yi ñuy di jëf wa sa turadduuna te des na leen delloo delloo mooy yëkkuwaat ila aalimil xëy bi te aji xam njëkkumpa wa shahadati ak li teew su nu demee ba ca kanam yàlla moom ñu xam lépp nag fa yu nabbi'ukum bu boobaa mu xibaar leen ba xamal leen bi maa kuntum li ngeen nekkoon lépp te amaloon na doon ci jëf dara ko ca raw waaye dara du ko ca réer ba tey ñu ñëw ci xeet ci ñi nga xam ni dañu wuute woon jihaad yonent bi soññee ñu bañ a dem ci amuñu woon benn ngànt loolu nag ñetti nit la dalal fii lay nekk leen di ko sababan sababu na sóolu aaye bi ñetti nit la woon ku ñuy wax Kaab ibnu Umayya ak ku ñuy wax Maraarata ibnu Rabi ak ku ñuy wax eh, Hilaal ibnu Umayya ak Kaab ibnu Maalik ñett ñi ñoo bañoon a dem ci jihaad te fekk dara dalu leen léegi nag yàlla xamal yonent bi ko ñooñu dara jotu leen woon yonent bi de jullit yëpp daal leen di mere dootuñu leen tudd ba mu yàgg nag ñu xam ni kenn mënul daw lu dul boo bëggee mucc da ngay yiir ci yàlla ñu dem tuub yàlla jéggal leen yeneen bi leeralal leen yàlla baal na ñu doog a ni dootuñu ko defet ñett ñooñu nag lay wax seen mbir mooy ñeneen xeet la woon ci ñooñu mooy wa aakaru ne mu jëw noonu mu mujjoon nag jafe jamono lool àddina xat ci ñoom lool ndaxte dañ leen a embargo woon bañ a fi leen a tudd loola métti woon ci ñoom lool ndaxte booba yàlla baalagu leen ba ñu demee ba yàlla baal leen yonent bi nag yëg ko daal di leeral kanamam dañoo julli jenn suba rek gis yonent bi kanam bi leer nañ ñu xam ne kon yërmande yàlla ñëw na jéggal na leen yàlla yonent bi ni leen yàlla baal na leen waaye bu leen ko defati nag mooy ñàkk a dem jihaat te fekk amuñu benn ngànt bu leen dee dem loolu alxuraan di nekk li borom bi nee na wa aaxaroona am na ñeneen xeetu ay nit mooy ñett ñooñu mu wax leen mooy Kaab ibnu Malik ak Bilaal ibnu Umayya ak Maraara ibnu Rabi'i mooy woon mooy murjaw na ñett ñooñu de dañoo yaakaaran di amrillahi mbirum yàlla imma benn yu asibahum mu jàpp ni dañ leen di mbugal wa imma wala boog ñaareel ba yettoo bu manis naa bal alim ci ñoom ñoom ñu ngi woon ci diggante ñaar yooyu amaana yàlla mbugal leen ci loolu alak leen wala boobu mu baal leen par yàlla mujj na leen baal wallaahu yàlla alimun mooy ki xam ak imun mooy ki firiñ te xare la léegi nag wala sii na mu ni gaa ñi nga xam ne ci taxasoo jàppoon ne bàyyi na loolu mi ngi ñëw ci ñi nga xam ne dañu jàppoon jàkka yi masjidu xubaa tabax baneen jàkka fa wet ga na feqi medina yooyu dañoo wutoon baneen jàkka bu ñu dendalee masjidu xubaa muy wujjale tabax ko ba wet ga defar ko ba mu baax ñu bëgg a woo yonent bi ngir mu fekke bi ñu koy ba ñu ko invité na jox ko carte invité invitation ñu yonent bi na nga ñëw ku ni inauguré sunu juma ak sunu jàkka ja léegi nag yàlla xamal yonent bi ni ko jàkka jooju tabaxuñu ko ngir yàlla dañ koo tabax ngir wujjale ak lor ak kéefar dong moo fondement jàkka ja ba ca ngir bu mujj ba foofu bu fa sab tànk jam yàlla géey loolu yonent bi ni ko jàkka yi masjidul Quba ji nga xam ne moom dañ koo tabax ngir yàlla dong ak ragal yàlla ca tàmbali fondation ba ba ni mu àggee foofu doom nga yàlla nekk waaye bul dem ci jàkkay naafeq yi nga xam ne dañ koo tabax ngir teqali lii ci kéefër ak euh, wujjale donc hmm? la loolu la bëgg a dugg ci àtteeb jàkka joo xam ne dañ koo tabax te yàlla taxut borom bi nee na wala dina gaa ñi nga xam ne ittaxasoo dañoo jàppee masjidan seen jàkkaat diraaran lor dong boo ko kon takku moo tax ñu defar wa tafriqan ak bëgg a teqale baynal mu'minin diggante way gëm yàlla yi wa irzaadan te bëgg a baare mooy sakk li man képp koo xam ni araba day xeex allah yàlla nga xam ne mi ngi jihaad wa rasulah ak yonentam bi ñu bëgg leen a gàllankoor min qablu te yàgg nañ koo def lu jiitu tey yàgg na lool wala yaalifunna moo ne ñoom te def nañ bay jim ñi in aradna deet nooy namm dara ci suñ tabax ilal husna lu may lu rafet fekk du dëgg wallaahu yàlla yashhadu seede nañu innahum ñoom lakaasibuuna dañuy nar yàlla nag yonent bi kon dañ la faaw laa taqum bul taxaw fii boo fekkee barab ba abadan ba faaw ndax la masjidun jàkka joo xam ni usisa dañoo fondation tabaxam nga ala taqwa ci ragal yàlla muy masjidu Quba kii min awwali yawmin ca premier jour ba ñuy teg première pierre ba ah ah jooju moo gën a yey. an taquuma nga taxaw fii ci moom ndax fii ñu nekk na ci jàkkay masjidu Xubaa ji rijaalun góor yàlla yoo xam ne ñu ci boona dañuy bëgg an yatatahharoo ñu la wallaahu yàlla da ngi ibu bëgg na moos al mutahhiriina ñu nga xam dañuy saxoo la ba tey yàlla teelu di wax ni jàkka jooju nga xam ne dañ koo tabax te bun ya fondation ko ci ragal yàlla rek la tegu mooy masjidu Xubaa ndax dina yem ak jee nga xam ne naafiq yi ñoo ko tabax moo ko ab laajte yi alifu istifhaam istiqaam boobu ñu jàng naaw aalu nuxaat yi istiqaamu taqrir lañ koy tudde mooy laajub saxal boo tax yàlla ni afa man afa man ndax waaw laaj la afa man ndax jàkka ja xam ni assasa am nañ jàng ussisa bu dee afsa ak wars rek la bu dee wars dañ naan ussisa bu dee afsa mu ni assasa afa man ndax jàkka ji nga xam ni kas sa dañoo fond man mun yaanu ko tabaxam nga ala taqwa ci ragal yàlla min na lay bu jógee ci yàlla waj waan asa ku ngërëm xam nga ni jooju xëyul est ce que bu du moo gën am man wala ni kas sa dañoo fond man mun yaana tabaxam nga ala safa ci kaw tuñum kàmb jurufin moo xam ne mi ngi gollee tuñum kàmb muy gollee ku jëm safara maanaam ala safa ci tuñum jurufin pax moo xam ni hërin ma ngay gollee ku fan arabi màpp baatu xaar ak ban xaara benn bi mooy gollee ko ak màpp jëm suuf ndax jàkka jooju nga xam dañ koo tabax ci tuñum kàmbuk safara muy gollee ko te màpp ban xaara di màpp bii jëm ca safara ba bi naay jahannama safara jahannama ndax moo gën wala jëriñ jur taqawaajee moo gën fuuf wallaahu yàlla laa yaa di du jubal alxawma ay nit soir yi ne yu mel ne ñooñu yàlla nee na ñoom ñooñu tabax tabax boo xam ne wujjale doo nga tax bunyaanahum seen tabax googa ñuy tabax allasi bi nga xam ne banaw tabax nañu ko ribatan ci sikki sàkka yu xulóobihim ci seen xol ya du dañ mukk àla taqattaha lu dul mu dakk mooy séddale ya ñu tasaaroo wallaahu yàlla alimun mooy ki xam ak yi moom mooy ki xereñ ka xaral la bawul dara waaye fàttewul leen lépp ku la bind lépp la téye lépp lay laaji ëllëg ñu ñëw leen di ci beneenu atte beneen atte bu jëm ci ñi gëm yàlla ak seen matuk jëf ju rafet jooju yàlla di leen ko fay te yàlla mi ngi natt seen jëm yàlla de ji ba ñu nangoo joxe seen alal nangoo joxe seen bakkan ci yoonu yàlla yàlla ni ginnaaw ñaar ñi gën a seer te nit gën koo bëgg mooy bakkan ak alal nangu dañ koo joxe ci yoonu yàlla kon nag bu ma ko jëlee dinaa leen ko fayee aljanna moom lañ leen koy neexalee mooy doon njëkk yàlla ngi jaay àjjana ci ñaar yëpp mooy bakkan ak alal mu ne looloo doon njëgu àjjana loolu la nar a jàng ci dox bii nu tàmbalee jël tàmbalee inna la askara ba ba ñuy àgg ca bashiril mu'minina dox bi loolu la ciy jàngale seen téere borom bi nee na inna laa naka yàlla askara jënd na ñu ne moom ñu ne ci way gëm yàlla yi an ko soom seen bakkan ya wa amwaalahum seen alal ya li mu ko jëndee moo di daana lahum naka ñeel ne ñooñu nangoo joxe alal seen bakkan al jannata àjjana la leen koy fayee bu boobaa nag joxaati loolu ñoom dañoo nangoo xeex sabilillahi ci yoonu yàlla fa yaqtuloona benn ñu rey leen wa yuq maanaam fa yaqtuloona ñu ree wa yuqutaloona wala ñu rey leen yaqatul mooy ñoom ñu ree yuqutal mooy ñu rey leen yépp lañ yemale ñu dee wala ñoom ñu rey nga tax mu nit fa yaqtuloona ñu reyee ñu rey ñoom wa yuqutaloona wala reyees leen nangu nañu ko ci yoon yàlla wax den loolu ab jiig la bu mu jiigee alee ci moom yàlla xaqaan bu dëggu la àjjana moom mu leen jig nee na dëgg la dama leen ko xëyee te jég bi ni mu leen ko digee fii ci alxuraan noonu la nekkee woon ci yeneen téere ko jiitu muy tawraat ak injiil maanaam moo tax mu ne xam lu dëggu la te tawraat teg tawraat wal injiil ak téere bu ñuy tuddee linjiil mais bi ñu wàccee woon ci Moussa tawraat te Isa dañu wàccee ci musa ci Moussa waaye ci Moussa ñii dafa loola nekkee yàlla ni lu dëggu la ci ñu nangoo joxe seen bakkan seen alal jaaye naa leen ko aljan aljanna wal furqaan yi noonu la nekkee ci alquran nii nga xam ne mooy li teqale diggante dëgg ak fenn furqaan mooy teqale dëgg ak jaaxaan quraan mooy lu ñuy jàng Burkaan mooy luy àtte di teqale dëgg ak jaataan yàlla neen wa man aw faa def koo xam ne matal na di ahdihi jigéen bi mu jigéen moom ni na laaj ci yàlla parce que siroo ñooñu ñëpp da leen nan dégg leen kontaan leen bi bay ikum ci seen jaayante googu ngeen jaayante te si nga xam ne bàyyi tum jaayante ngeen googu di moom yàlla wa zalika ci loolu yi kat wa moom alfawzu mooy texe al asimu gu mag loolu la yàlla tudde texe bu mag léegi nag mu ne am na ñoo xam ne dañuy sax di tuub di jaamu yàlla di sant yàlla di woor di rukkoo di sujjóot di digle lu baax di tere lu bon tey wattoo li yàlla tere ñooñu nag la yàlla ni yonent bi kontaan loo leen ni ñoom ay jullit lañu dëgg dëgg te dinañu dugg aljanna loolu la borom bi nii ataa'ibuuna way tuub ña al aabiduuna mooy ñuy jaamu yàlla al aabiduuna mooy ñi sabab dem ak saa ihuuna mooy ñiy woor saa ihuuna ay saa imoona saa ihuuna mooy ñiy sa ñiy woor weeru koor ak saa imoona ñiy woor raakihuuna mooy ñiy rukkoo ak saa jidoona dañuy sujjot lool boo leen boolee mooy julli julli farata moo am rukkoo ak sujjoot al aamiruuna mooy ñuy digle bil maaruf bi yiw wala oona te dañuy tere anil munkari lu ñu sëpp mooy lu bon wala afisoona te dañuy wat li uduudillaahi dëxal yàlla mooy ay rëddam di ay frontière am fa mu yamlu fekk fa la ñuy yam bu ñu weesu la leen yàlla def loo yàlla ni yonent bi nag wa bashiri na nga kontaan loo wa bashiri na nga dëgal almu'miniina ñu ñuy gëm yàlla ci àjjana lim ngeen ci bégale sax moom la cee tegaat léegi ñu ngeen nar a kontaan loolu ni moom la ñuy am moom la ciy teg mooy àjjana joo neer joo xam ni sax ba faaw ñu ñëw léegi ci beneen arte boo xam ne mi ngi jublu ci jéggalul bokkaalekat yi jéggalul waaye bokkaalekat yi Ibrahima Ibrahima daana ñaanal papaam ak njub naa ko yàlla la yàlla génne ci dëng gi di ko ñaanal itam bu ca génnee yàlla jox ko ak njéggal baal ko léegi nag yàlla ni koo xam ni da nekk ab julit mënoo ñaanal ab yéefér aljanna jaadootul nga koy ñaanal lu dul nag xanaa nga ñaanal ko mu dikk ci diine ji waaye mënoo koo ñaanal aljanna waa di ni mel ni nag ba aaya bi wàccee dañu ne waaw Ibrahima doon na ñaanal baayam di yàlla ni lu ngeen ci gis Ibrahima kat da doon ñaanal baayam pour mu dugg ci diineem waaye ba mu ko wóolee ni bàyyam bi ab yéefeer la du bàyyi mu ko kéefar ba ca lay dee ca la Ibrahima ni kaccat génn ci ñaan nga moom dootu ko ñaanal moom ngay jàngale ci dog bi maa kaana li nabi wala si na amanu an yastaghfiru kon nag ku yàlla ci yonent bi ak ñi gëm yàlla ñàpp ñiy jéggalul ay bokkaalekat naa leen ne na leen yàlla jéggal lu dul rek ñu tuub seen bokkaalekat dugg ci lislaam loolu la jàngale suñ ci borom bi nee na maa kaana yellul jaaduwut li nabiyyin ci yonente bi wala si ñi nga xam ne amanu gëm nañu an yastaxfiru ñuy jéggalul lil musrikiina bokkaalekat ya walaw kaanoo doonte bokkaalekat yooyu nekk nañu ulii xurbaa di boroomu jege ñaare ci ñoom ci wàllu askan min baadi maa na ginnaaw ba mu biree ñi leer nañ ñi ni lawum ñeel na ñooñu ni annahum ñoom ashaabul jahiimi ñu ngi waa safaraw jën in lañu kon dootul jaar ñu leen di jéggalul wa ma kaana nekkul it istixfaaru Ibrahima mu mel dañ ko ne waaw Ibrahima doon nag wax baayam di ci lu mel noonu yàlla ni lu ngeen ci gis wa ma kaana nekkul istixfaaru Ibrahima jéggalul Ibrahima nga di ab di ci baayam ja ilaa an maw'idatin du dara lu mooy ab dig la woon wa abdaha bu digoon na ko fu moo ko ni woon dinaa la jéggalul yàlla te day def la mu dige woon dong loolu kon dara illa an maw'idatin wa'adaha jege woon na ko ko iyaahu moom waaye kat Ibrahima kay moom falamaa tabayyana ba mu biree la oo ñeel Ibrahima mooy leer falamaa tabayyana ba mu leeree la oo ñeel Ibrahima ni annahu bàyyam boobu aduun am noonu la lillaay ci yàlla bu wér nim noonu la tabarra'a booba la dañ ko set wécc moom Ibrahima minhu te jégalul ba ko doon jégal ak ñaan ba ko doon jégalul ak di ko ñaanal inna ibrahima yàlla ne na ko ibrahima day moom la awaabun aje delluwaatoon na ci boroomam xalimun ku lewat la mooy juub awwa mooy juub mooy dellu ci boroomam te ibrahima ku lewat la na borom bi nee na wa maa kaana ni kutlaahu yàlla li yuddila ngir mu sànq qawman ay nit baada is hadaahum gannaaw ba mu leen indee ba noppi a yu bëy na lu dul day biral la um ñeel leen maa ye toppoona la ñu war a li taxuuna mooy wattandikoo mooy lañ war a moytu bàyyi ko fa da leen koy leeralal inna allah yàlla fi kulli shay'in lépp lu ne moom yàlla alimu moo ko xam inna allah naka yàlla la oññal na ko xulqu samawaati moo neelu asamaan wala arde suuf yu yi yàlla mooy dundal képp ko dund wa yumiitu mooy rey ñi dee wa maa di di ñee leen min duuni lay kudd yàlla min wandi jin benn wiiruwaay wala cëslaay wala làqatukaay wala nasirin du jaagin ngeen di am ndimbal fenn ku fi bàyyi yàlla di wut ndimbal ci beneen wala beneen mu doo ko am ndimbal gu ma sëkk yàllaa ko am mu taxoon wa ma nasru illa min indillahi jàlloon na amul benn ndimbal buy am njëriñ lu dul mu jógee ci yàlla wala boog yàlla dimbali kooku moo ko dimbali la ba tey ma ngay jógee ci yàlla rek ñu ngi ñëw léegi ci tawbatu maanaam tuub ba tey ak i sartam tuub nag dafa am sàrt yoo xam ni mooy tax ñu nangu ni danañ la jéggal lii te sàrt yi kat am na téere bu tuuti boo xam ni Abdourahman al Ardari yu moo ko liggéey moo ne sàrt yi tuub ana damu ala ma faata wa niyatu an laa taxuuda illa xereñee la bu ñu xereñee mooy dañoo àtte aayaam yi bu ñu wees te saar wa ñu weesoon nag mu di aali Imran nee na am na ci aaya yoo xam ni moom mutashaabiha la am na yu ñu ikama yooyu ñuy wax liqaam waaye am na yoo xam ne mu bi am mooy alif laam yooyu ak amiim ak gaaf aya ak ay ak ak amiim ay sim xaaf ay yu demee noonu yëpp ñooy yi nga xam ni dañu leen a niirale ba pire mi gën xamu ko ñàkk gee xam nag lu nu wàññi dara ndax yàlla aju ci sunu lenn atte wu ci digalu nu ci dara tere wu ci lenn moom daal secret ma bu mu xam moom ak yonentam bi dong Jibril mi ko doon indi sax tamit lu muy tekki alif laam yooyu daal kenn xamul ko yàlla gën a dem moo tax mu tekkee ni tilka araf yooyu mu la wax léegi lii ayatul kitaab bi mooy tawte bi téere bi al hakim bind bi ñu xereñ borom bi nee na akaana linnaasi mu ndax nekk na ñeel nit ñi ajaban ñuy yéemu an aw xay naa ci wax yu ki xam ne wax yu naa ko ila rajulin jëmee ko ci benn waay min umbu bokk ci yéen te mooy yonent bi di Muhammad wax yu gën bi nga ko ko jotee yàlla da ko ni am gi am si na waar mooy na nga na nga xub ko na nga waar naa sa nit ñi ba bashir te nga bégal li si ne ñi nga xam ne amano gëm nañu bu dee nit ñi moom ñëpp waar bu demee nag bay bégal bu bégal jullit yi ci seen yaa boobu ni leen àjjana ngeen jëm moo tax da ko ne an ngiri an siri waara naa si naa sa na nga leen woo waar leen waaye jullit yi la nangoo wuñu nag di ànd ak yow di pratiquer l'islam wa bashiri na nga bégal ali sin ñi nga xam ne aamuna gëm nañu na nga leen bégal ci nu ànd la xum ñeel na leen xadama sidqin jiitu gu dëggu kadam mooy jiitu ñoom day ñooy jiitu dillu wa ñu ndarab qaala wax na nag alkaafiriina alkaafiruuna yéefare ñu ni inna asa naka lii Muhammad di wax tey la saahirun moom ab jibar la rek li muy wax it jibar la mu gën a ngub yëpp jibar loolu la weddikat yi wax ni Muhammad li muy wax ab jibar la li muy wax it ak jibar la yàlla nit déet ñoom ñoo koy wax waaye alquran la joo xam ni maa ko wax yu mu di wax ni ma ko ko waxee jox ko ci wàññi wuj loolu lay wax ni inna rabbakum naka seen borom bi allahu te sii mooy buur bi nga xam ni xalaqa bind na mu samaawaati asamaan yi wal arda ak suuf yàlla moo leen bind moom asamaan ak suuf bi sittati ayyaamin ci juróom benn bis dong la yàlla bind asamaan ak suuf ak ci seen biir yëpp suma stawa yàlla daal di yemoo yemoo mooy noŋ alal arsi ca kaw aras mooy gëngunaayam nga yàlla moomu nag yu dab biru moom mooy diggante al amra mbir yi mooy doxal lépp maa min shabihin amul jenn aji rëmmu illaa min baadi isnihi nawet ci ginnaaw ndigalal borom bi la loola di amee saalikum kookule seen nga xam ni mooy doxal mbir yi te kenn du lu dul mu digal la ko kooku nag allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom fa'buduhu mu ne nañ ko jaamu afala tazakkaruuna mu ne ndax da ngeen dul waaru te ay fàttaliku li leen yàlla sant afala tazakkaruuna ndax da ngeen dul waaru te fàttaliku yàlla borom bi nee na ci léegi jëm na ci yàlla mar ji waxum seen dellukaay jami ak yéen mooy bu ñu jógee àdduna bu nu tourné fa nuy dellu àllaaxira ci yàlla dong la nu jëm ñun ñëpp nag ilayhi marji'ukum jamii'an lay na loolu yi nag dellu gi ñuy war a dellu ci moom jigée na ko moom yàlla te dëgg la ni mu ko lay amee loolu la ñuy wax dallaa yi digub yàlla haqqan lu dëggu la innahu li am ba am moo di yëpp taw yàlla moo fent mooy sos moo tàmbali alxalxal bindeef yi moo leen sos ñoom ñëpp nag kenn ku ne yàlla la sos summa yu'iiduhu topp dinañu delluwaat ci moom ku nu delloo nag ñi ngeen gis yooyu ngeen tey fay alladina ñi nga xam ne amanoo gëm nañu yàlla wa amiloo ñu jëfee saalihaat yi yiw te mooy farata naafila la ñuy def bil xisti ci maanu la leen yàlla fay maanu bi moo di kenn ku nekk li nga jëfoon dina la ko fay waaye ngëneelam ak baaxam nag bu dee jiw moom dala koy dolli bu dee lu yiwut nag dala koy fay nam toll woon loolooy gi ñëwee da leen di fay cin maandu mooy ku ne la nga jëfoon bu baaxul du la ci yokkal dara waaye du ko jox keneen kon mu tooñ ko yow rek la koy jox loolooy maandu gi bu dee yiw nag daf koy dolli ba mu bari loolu yërmandeem daal di woon yàlla nee na wala dina gaa yi nga xam ni dafa loo dañoo weddi dawum ñeen la ñuy weddi ñëpp saraabun naan gu ñu nar a naan min hamimin ca ndox mu tàngum safara moo yawmal qiyaam hamim mooy ndox mu bax bay wañam wa azaabun dinañ am mbugal alimun gu métti ci ñoom wali rasulilah lu ko waral bi ma kaanu ngir la nekkoon yàq furóo na di wet di dañu nekk ci àddina dañ doon wet di yàlla weddi yonentam bi weddi alquran weddi diine ji loola moo leen jural asaabun alimun bi ma kaanu yakfuruuna borom bi nee na woo yàlla si mooy buur bi nga xam ni jaala moo def lakum ñeen leen sam sa jant bii di am mu leer nañ lu man cee gisee waaye it mu ànd ak boo xam ni mooy tax sunu deret ji di dox kon sam jant bi day am leer boo xam ni day ànd ak ko tàngaay mooy di am jeewa ci arab mooy leer boo xam ni day ànd ak am nuggaay mooy leeru jant bi wante bu weer wi tamit wala xamara weer wi yàlla nu ko defal nuuran mu di leer nuur nag mooy leer boo ànd ak seet looloo leen wutale diyaan mooy leer boo ànd ak nuggaay waaye boo ànd ak yàlla nee na maa dogalal maa ko bind maa ko amal ak dara mooy dogal mën naa si la ay wàccukaay moom weer wi yàlla ko wutal ay jéeg yu muy fenkee loolu la ñuy tuddee wàccukaay bu demee ci suuratu Yaasiin dañuy dégg mu naan wa shamsu tajrii li mustaqarrin lahaa waaye wal qamara qaddarnaahu manaazila hattaa aada kal urjuunil qadiim loolu mooy manaazil ndax weer bi buy doog di feeñ ci suufu sowu bi lay feeñi lool waaye bu ci suba saa fa muy feeñi bu jant soo day fekk mu gën a kawe yeeg tuuti noonu la koy defee ba bu weer bi amee fukki fan ak juróom ñuy fexe ci digg asamaan bu demee ba weer way bëgg a jeex ma ngay fexe ci wàcce penku ba loolu nag mooy menaces yi bu ñaar fukki menaces ak juróom-ñaar ñu ngi weer wax xëy na te mooy nëbbu na kenn dootu ko gis te àdduna bi ba bu nekkee mat na fan weer mu génn wala mu mat ñaar fukk ak juróom-ñeent génne waat te soowu ba nekkaat lu tuuti loolu mooy menaces yi weer wi duggee ka génnee. loolu yi nag weer wi di feeñ di génne fii di génne waat fee bu ëllëgee lépp yàlla nee na dama leen ko defal pour ngeen xam ci nag li mu at yi teerutel weer yi ci la ñuy mën a xamee li mu at yi ci la ñuy mën a réglé jigéen bu fekkee ni dañ ko fase idda bi nu muy toll buy witti dawuy weer bu fekkee ni borom këram dafa faatu ñeenti weer ak fukki fan buñ koy jàpp ci rek lañ koy mën a xamee weer yooyu di feeñe ko rek mun na futuwaat loolu la ni li taale moom ñu ngeen mën a xam sinina li mu at yi wal isaaba ak yi ngeen dikkal bi la kawe yeeg ite yeeg koor yeeg koor yeeg digg yeeg tabaski yi maa xalaqa bindul moos allahu yàlla zalika loolu yi ilaa bi xaq rek dëgg rek la ko yàlla bindee yu fassilu yàlla ne mooy teqale ka ay leeral baatu yu fassil mooy tettale leeral trampacce al ayaati ay alquran yi li xaw min ñeen ñi nga xam yàlla mun a xam nañu ñu xam ñëpp xam nañ ni alquran leeralal na ay ayaam nit ñi mooy li xaw min yàlla a yàlla nee na dina fexe tilaa fi layli beneen kaw teefa ñi koo xam ni guddi gi ak bëccëg bi ni ñuy wuutoon te ku nekk di remplacer sa morom loolu kimtaan la beneen bu dee ko nit mën a waaroo ba xam yàlla rek mooy góor moo mat a jaamu loolu lay wax nii dina fi ixtilaafi leyli nekk na ci wuuteeg guddi gi wa nahaari ak bëccëg bi wa maa xalaqa ak li bind na ko laahu yàlla ci samaawaat ci asamaan muy ay biddiiw ak yeneen yoo xam ni ñoo ngi koy séen ci kaw asamaan si biddiiw yeeg ñiir yeeg yeneen yi yooyu yëpp wala arbi ak suuf si ni ko yàlla bindee mu nekk ay montagne ci xur loolu yëpp la yaatin ay kawteef laa ci tegtal li xaw min ñeen nit ñoo xam ni yëpp taxoon a ragal nañu yàlla dañuy xamee ci ni loolu jëlay wane ni yàlla mooy ki bind moo mat a jaamu ndax loolu moom képp moo ko mën a def muy kéemtaan yu muy waare nit ñi waaye ni doomin yaa lamuuna wala yaaqiloona yëpp am na ñu ngi ñëw léegi ci ab julit akub yii fekk kenn ku nekk ci ñoom ak mujj ga comme yi mu jeeg la ko yàlla lay fayee borom bi nee na la sina gaa ñi xam ne laa yar joona yaakaaruñu mooy gëmuñu liqaaxanaa dajeeg nun yàlla warat dooñu gërëm bil ayaati dunya dundi àddina bi daal moo leen gënal alaaxira wat na anoo ñu dal bi a ci loolu ñu nekkee te mooy jàpp ni àddina rek a am wala si ne ñooñu mooy ñi nga xam ne um ñoom dan ayatina samay aaya alquran yi xaafiloona dañ ko sàggan rek bañ koo gëm gi du dara ay ñooñu baaxuñu de yàlla nee na ulayka yooya gaay fa ñu leen di dalal fa ñu leen di héberger fa ñu leen di wàcce ëllëg naaru mooy safara bi maa kaanoo ngir dañu nekkoon jëkk si boona di ko fàkku ci àdduna te mooy bakkaar lañ doon jëm baatu kasaba mooy fàkku lañ doon jëm di ko sàkku mooy lu baaxul bàyyi na ñooñu mooy ñi nekkoon ci àdduna topp seen bakkan ak seen bànneex di def la leen neex ba ba ñuy faatu loola leen yàlla yi faye ëllëg bàyyi na ñooñu muy ñëw ci ñi gëm yàlla ñii nga xam ne ñoom dañuy jëf farata ki naafila boo leen di jaamu seen borom ànd ak gëm ko fa leen yàlla nar a héberger ëllëg dalal leen fa ñoom mooy lii ñëw seen teew borom bi nee na inna naka gaa ñi xam ne amanoo gëm nañu yàlla wa amiloo ñuy jëfee saali aati aw yiw mooy farata ak naafila yahdihim dana leen jëndi jubal leen rabbuhum seen borom di imaanihim ngir sababa seen gëm ji ñu gëm ci leen yàlla yi ci yoonu baax wi tajri danañ fañ jëm nag tajri dina daw min taatihim ci seen suuf al anhaaru ay sew de nu mu tudd di jannatin mooy ajjana an naimi ajjana xéewal ja nga xam ni xéewal ya fa nekk du jeex mukk te fa la ñuy sax ba faw bu nu demee ba dugg foofa nag la ñuy mujj wax di ko ñaan mooy daxwaahum seen woote ya ñuy ñaan fiihaa foofee mooy dañ naan subhaanaka sell ñeel la yow yàlla yaa baax allahuma yow sunu borom wa tahiyatuhum yàlla nee na nuyoo ya ñuy nuyoo foofee ca àjjanam fiha foofa mooy salaamun baatu salaamun dong lay ndaxte nee nañu boo assalaamu aleykum mooy am ñaan la ah, wala mu dim laaj benn nga ne ko yàlla nga am jàmm wala mbaa am nga jàmm bu xas ñaar yooyu yëpp day tax kenn du am na jàmm kenn du ko ni na nga am moo tax mu ni la ñuy nuyoo baat ba de salaamu moo lay doon bu ñu demee ci suuratu Waaqia dina ko wax nee na dara du fay kàddu yu koy jib te àjjana lu mooy salaaman salaaman dong illa qiilan boobaa baat boobu rek la ñuy wax mooy doon soxla lépp loo bëgg a soxla baatu salaam ngay wax loola di salaam tekki loola nga bëgg yàlla nee na aaxiru daxwaahum mujjug seen ñaan bu ñuy bëgg a dugg la ñuy mujj ñaan la ñuy mujj wax di ko sant yàlla moo di ani alhamdulillah sant ñeel na yàlla rabbil alamina moom mooy borom ngàllo gi yàlla mooy jaam yàlla mooy borom jaam ñëpp rek moom muy sangu di kilifa di boroomu ñëpp rek mooy borom jaam yi kon loolooy rabbil alamina te yàlla boole ci ña nga bu ñu demee ba àgg foofa baat yooyu la ñuy wax mooy alhamdulillahi rabbil alamin bàyyi na loolu ñu ngi ñëw léegi ci ñi nga xam ne nag ay nit lañu waaye dañuy dañuy topp maanaam nit nga xam ne dañuy toppee ci lu dul dëgg ci ak woru ak yàkkamti loo xam ni yàlla dogala ko ko jamel noonu loolu mooy di tàmbalee wala yu ajilullahu linnaasi sarra istijaalam nga xam ne ñoom dañoo nekk ci lu leen waru ba noppi naan lottee yàlla daal ñuy bugal léegi yàkkamti nañu lool loo xam ne su yàlla melam ni ñoom ci yàkkamti fii la leen koy daal di leen bugal gi léegi waaye du duxkaar ba boobu waaye nag yàlla dañu moom lu mu xas ba dogal ante ko wutal ko ak leen yow ko jëkk du def loola mukk te loola àgguñu te moo tax mu leen di xaar ba bu ñu fi tuubee ci diggante bi nag danañu am sens ñu nekk lu baax ci ñoom loolu mooy li nar a tàmbalee ci wala yu àjjilu seen téere borom bi wala yu àjjilu su fekkoon ni yàkkamti woon na mooy gaawe na daaw yàlla dinaa si ñeel nit ñi sarra aw ay ni ñu ko bëggee ñoom ni ñu bëggee mbir mi leer léegi su yàlla melan ni ñoom ci yàkkamti istijaalahum kon mu yàkkamti loo leen ko ñoom itam maanaam bu fekkoon ni walaw yu ajjilu bu yàkkamti woon laaw yàlla linaas ci nit ñi sarra aw ay istijaalahum ni ñu ko sakkoo yàkkamtee gën koo yàkkamti bil xëyri aw yiw bu melal di ñoom ñoom moom yàlla la xuddiya kon mu àtte léegi léegi ilayhim ñoom ajalum seen jib kon da leen di daal di rey léegi daal leen yóbbu ca ay wan ni ñu koo yàkkamtee gën koo yàkkamti aw yiw waaye yàlla nee na fa nasaru dinaa bàyyi la si na ñi nga xam ni laa yar joon a gëmuñu mooy yaakaaruñu liqaa ana dee ba dekki dajeeg man faatul liqaa mooy daje yar joona dégg yaakaar waaye di gëmuñu lay doon kon nag nee na ba nasaru dinaa bàyyi la fi ne ñoo xam ne laa yarjuuna yaakaaruñu mooy gëmuñu liqaa anaa dajeeg man fi tuxyaani im te seen beew galaa leen di bàyyi yax ma woo na ñuy dénk-dénk dénk mooy ku xamatul fu mu jëm di wëndeelu rek loolu mooy ma woo na ñuy dénk-dénk te ñoom ñooñu nag ida massahu laala linsee al insaana nit ñooñu nga xam ni duñu ay jullit dëgg mooy insaan foo déggee insaan ci alxuraan rek nekkul ku gëm yàlla gëm yàlla bu mat mu tax nit rek la koy firee ak insaan nit kooku buñu leen daalalee addurru ay lor da aanaa ñu daal di tàmbali dinu woo ak a ñaan man yàlla bu ñu ne may woo nag li jëm ji ñu fekk na ma nga tëddee dig wetam aw xaa'idan wala mu fekk mu diyu aw qaa'iman wala mu fekk mu taxaw waaye man lay woo rek day xam ni amul fenn fu mu bu ma leen wuññilee wuññi mooy dindil an wujji kooku doon ñaan turraboo lorom jooju ko dal marra mu dal di delluwaat ca bon nga ka an lam yaduna mel ni du moo ma doon laaj ata woo léegi ila durrin ci lor ji nga xam ne la loon na ku ñàkk jom lay doon kon kadalika yàlla nee na ko noonu su yi na la rafet sa leesee lil musrifina yàqkat yi ñuy yàq rek di wéy maakaanu la ñu nekkoon yaamaloon di ko jëf te baaw borom bi nee na wala xad ahlak naa nun yàlla alak nanu alquroona maas ya mooy siècle ya bi jiitu woon min xabikum ci ñi leen jiitu woon ci tooñ ba ma leen ba ñu ma tooñee tooñi yonent ba ma yónni ci ñoom weddi ko booba laa leen alak loolu yi bari màkka yi doon weddi bi laa leen doon wax naan na ngeen def ndànkale attention ndax te xeet ñi leen di jiitu woon ba ma tooñee weddi yonent ba ma ci ñoom rek dama leen alak loolu la nii wala xad alak naa noonu yàlla a nanu alxuroona siècle yi fi jiitu woon min xablikum ñi leen di jiitu dama sala moo fa ñu tooñee ba weddi laa leen alak wa jaa akum pourtant ñoom de dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya yàlla yónni ci ñoom yonent ya indi woon nañu bil bayyinaati lay yu leer nañ waaye wa maa kaanu nekkuñu li yu'minoo ci gëm yonent yooya dañu leen a weddi weddi ma man yàlla may ma alak leen kazalika naka noonee la ji di lay bayee ba bisu tey alxaw ba nit ñoo xam ni almujrimiina criminel la ñu def kat yi bakkaar ak njaaxum bi nee na su jaal naa kum topp def naa leen yéen waa Makka yii xalaa yi ba ngeen wuutu fi fil ardi ci suuf si min baadirim ginnaaw ñooñee ma andi leen ngeen uutu leen fi li nan sura ngir yàlla ngir man yàlla ma xool ba xam kayfa taxmaloona ana nan ngeen di jëfandikoo te ak yonent bi ma yónni ci yéen ñi leen di jiitu woon ci aw xeet weddi yonent ba ma yónni woon ñoom dama leen a arak yéen nag indi naa leen fi te xool ba xam yéen nan ngeen di def ak yonent bi ma yónni ci nan ngeen di jëflanteeg moom léegi nag muy ñëw ci. ñi nga xam ne dañuy tuumal musrikuuna yi nga xam ne dañoo sax dafay musrikoon ak te fekkoon ni ña ngay wut ay melokaan kon lii di bëgg a ñëw benn la ci melokaan yi ñi nga xam ne ay musrik lañu di ñoo wor dañuy wut ay pexe yu ñu weddee ak a lor ak a wor yonent bi daal nuñ koy weddee mooy wa izaa tutlaa alayhim ñooñu nag képp ku jàng ci ñoom ay aayaat leer nañ ñi yii di ñu ko yéen ko yonent bi jàngalee dañ koy wedd looloo nar a tàmbalee ji wa izaa tutlaa alayhim aayaatuna ba ca kanam boobu ba ca amay rikoona day wane benn melokaan la ci melokaanu waru ga nga xam danañu ko war yonent bi sallallahu alayhi wa seen téere borom bi nee na wa izaa tutlaa su fekkee jàngatees na alayhim ci ñoom naafiqiin musrikoon yooyu bu ñu leen nettali leen tutlaa mooy jàngal nettali aayaatuna sama aaya yi bayyinaatin mu yu leer nañ ñi qaala dana wax la seen ña nga xam ni laa yarjuuna gëmuñu mooy yaakaaruñu liqaa'anaa dajeeg man yàlla dañu naan yow yonent bi su fekkee li ngay wax dëgg la te nga ko fee maanaam lii ngay wax nii te mu métti ni lool te nga koo bàyyi fi nga indil leneen sa alxuraan yi ko dañoo bëgg daal mu indil leen lu leen neex doomu moo tax ñu ne ko su fekkee ni lii maanaam ña gëmut yàlla ni danañ dajeeg moom ngay wax yonent bi ko i itti te nga indi bi quraanin alquran jeneen xayri haasa ju bokkul ak ji ngay wax aw baddil hu wala nga wotti ko mooy remplacé ko waxee ko naneen ñoom daal dañoo bëgg yonent bi waxal leen la leen neex wala mu indil leen ay